mbir am na ca cité kër góor gi de terminé kaay ne coowal suuf la de ah waaw ma la ca cité kër góor gi gee waaw terrain yoo ko nekk dañ koo hypothéqué la ilaha illallah juróom-ñeenti ci ay milliards ma la cité kër góor gi la scandale foncier boo xam ne nag moo gën a garaaw bu cité Tobago allahu akbar ma ne la ña xam ne nag ñoom ñoo dëkkoon ca cité kër góor gi goo gee wala moom suuf sa waaw ca bedeen ba waaw nañ waajal seen bopp de ma ca mbir moomee ah ma ya dindaraan ya kon dikk na kon cité kër góor gi la xewoon kon ca cité Tobago ga dana góor gi allahu akbar ma ne leen dëluy njiig waa Sicap ñooy njaak Sénégal la ko ndóol le populaire ne waa Fonds monétaire international di FMI day ah, bi Sénégal ñaar fukk ak juróomeelu réew wi gën a ndóol ci àdduna war ngal këpp gi ñin la allahu akbar la ilaha illallah ma ne fukk ak benn ci Afrique soow jant gi Afrique de l'Ouest waaw ma ne la ñin la gis nga ci sous bi ah, am na ci ay réew yoo xam ne bokkuñ ci de déedéet Nigéria bokku ci Côte d'Ivoire bokku ci Ghana bokku ci Mauritanie bokku ci Cap-Vert bokku ci jàppal ne kon fi mu nekk nii réew yi nga xam ne kon ñoo gën a ndool ci adduna bi day Sénégal fukk ak juróomeelu place ba la ilaha illallah ubbil la soleil yéene kaay nee na gouvernement ba d'accord ne pauvre Sénégal ci ñaar fukki réew ak nga a ndool ci adduna wërngal këpp gi lay waaw xam nga boo fi nekkee naan réew moo mais mi ngi ci ay tànk yokkute la voie de l'émergence loolee xam nga ne nax sa bopp la katarak ay bët yu naqari mën ta weesu loolee maanaam jaaxaan daal di tuur ndox loolooy dëgg waaw te gis nga xam ne nag moom la tubaabu FMI daal di koon wax waaw weddi ci Sénégal gi lée lool parce am Sénégal goo xam ne xoolal ma courant bi nga xam ne kon day coupé suba ngoon gu dégg ba ci capital bi nag loolee kon la ñuy dund chaque jour mu mel day sukrat mané le tourisme gaa ngi ni le day sox mané le lolé du metel légui kay tool moy ana fuy midi ñu xassan ko waaw amal a politique économique bu sérieuse mo gën ñeng ñeng ñeng patiti patata yi nga xamni kon mom la nu nekké waye mom bour day bo waxé ren bala waxati dewen sàll ngari lam toro last day Macky waxna libération yene kaay ne Macky le populaire ne Macky day ah ay mbot yu doy war la daldi di wax de digganteem ak Abdoulaye wad tëj bi nga xam ne nañ ko Karim Kasso mi ba ci sax wàllum góor jigéen ya Allah allahu akbar ah waaw le quotidien yéene kaay ne ma ne coppite gi xam ne na mën nañ koo indi ca kere bi day ah Macky daal dëggal na mi mi Macky dëggal na mi mi ah nee na nag xool daal nan la def kon ba kere yi boobu mën a évoluer waaw président ci tribune yéene kaay yamu ca ndaxte nee na kere bi daal fi def na liggéey boo xam ne nag bu ama am solo la man yéene ma Karim Wade dugg ci kaso bi dee Macky Sall wax ci yéene kaay ma jamba jàngi ba léegi Macky Sall wax na ca góor jigéen ñi kor Mariam ci tribune yéene ne ma ne la góor jigéen yu Sénégal yi xoolal libre nañu nañ def lu leen neex mën nañoo def lu leen neex ah président Macky Sall ci libération yéene kaay ne que les homosexuels soient des homosexuels c'est problème ce n'est pas mon problème loolu ma nekkul sama problème de jigéen yi ay góor jigéen la ñoo yooyee du sama problème laa la wax problème ba kay ma ca pale ba la war a ne la audience yi ngi de <laughs> maa la ko wax ma ne la léegi nag te biir palais boobee di dox ci couloir yi ak yu ni mel daal dugg bee génn bi dugg fii génn bureau bi dem ca bureau ba maanaam di eere daal di taxawaalu ci couloir yi waaw Macky Sall nee na loolee na daal di dak allahu akbar ay caméra ci boppam kon caméra de surveillance la ñuy def ca palais boobee di xool dem yàgg di ko yow laa ilaha illallah ma la booy xëy see booy wàcc benn machine boo xam ne kon maanaam te ngay tegu ngir ñuy xam dugg baa na ñoo ànd ak Modou Diagne Fada moom lañ leen di tuumal naan nguur yéen ak seen ginnaaw nee nañu du dëgg ay kàcc la uh-huh. ay dëmboo ci laas dëgg la Macky Sall ci boppam kon moom moo nekk ci ginnaaw Modou Diagne Fada di ko ruux ngir gone gii dal ci kaw Abdoulaye Wade allahu akbar ay dëmboo ne dama ne xam nañ Macky Sall bu baax a baax te gis nga jëf ji ci parti socialiste la ko njëkkee waaw ak député Cheikh Cheikh mbir ma doxul le populaire ne Bamba Fall waaw meeru Medina bu faloo ginnaaw yàlla ay taalibe sëñ Modou Kara la général bee ko wax sëñ Modou Kara Mbàkke ci am ndaje moo xam ne ñoom Seydou Gueye ma nga foon moo xam le ne Bamba Fall mi la samay taalibe ci Bamba fépp bi ñoo ko jàppale waaye jàppale ne nag élection bii di ñëw ni la Seydou Gueye mooy nekk maire maanaam Bamba Fall day wàcc Seydou yée eh Bamba fépp Bamba partout Bamba merci Bamba everywhere eh, tey élection yi enquête yéene kaay ne léegi day amatul sax ma dem te ñëw ah Alaaji Malick Gakou candidat la eh, eh, enquête yéene kaay ne Gaston Mbengue nga gaaw Gaston Mbengue dama ni Alaaji Malick Gakou candidat lay ne ci élection yii ay ñoom Alioune Sall ay ñoom Lat Diop yooyee di wax ca Géejawaay di tëb di dal yëpp duñu dara dëkkuñu fa bugg a ci tribune yéene ne Gakou moomu moodul dara fii lañ takk Géejawaay jox ko ko mu daw mu ñëw jox dëkk ba Alioune Sall Gaston Mbengue ci enquête yéene ne ko dee góoma de Alioune Sall dëkku fa foofu Gakou fa ne libération yéene ne douane bi day ah ci ab dossier woo électronique waaw moom lay jël di ko yóbbuwaat ca bitim réew dee te loolee day nguuru Sénégal gi lam ci ñàkk ci xaalis bari na ñetti milliards ak genn wàll weer wu dee wu ne mu waay ma la ëpp na kon ñaar fukki milliards laa ilaha illa allah doy du doy waar ba a doy waar la xew kon ca mairie bu ndar gee l'observateur ne maire ba ca boppam moo ko xamle kon ca Teranga FM ca Ndar Mansour Faye ci boppam moo xamle ne dañ koo coupé ndox maanaam mairie ba ca boppam lañ coupé ndox ndax juróom fukki millions ak ñaar allahu akbar ah waaw Mansour Faye ministre <laughs> alaaji ministre ndox ñu coupé la ndox yaay meeru dëkk ba ñu coupé dëkk ba ndox goro président ñu coupé la ndox ayaa bi mbang sa tala kurus alaaji tëjal